kër yi ci Sénégal yëpp kër yi ci Sénégal yëpp ak kuréel yëpp ak kuréel ñoom jàmm da ngaa ñoom jàmm ak toolub bi lislaam bi ngeen bokk moo tax ñoom ñëpp wuy si nañ la tey moo tax na nga rafet njort ni ñu ko séqal ñëpp teew nañu tey Sëriñ Abdourahmane Kounta Sëriñ Abdourahmane Kounta porte parole Ndiassane porte parole Ndiassane moo ngi nii toog ñu ngi dalal Serigne Mouhamadou Mahfouz Mbacké Serigne Mouhamadou Mahfouz Mbacké ñu ngi koy dalal ak seen léegi ñu ngi koy dalal yegg si na léegi Serigne Cheikh Tidiane Seck bu Thiénaba Serigne Cheikh Tidiane mi ngi ci mbooloo mi ngi ci mbooloo mi Alaaji Madike Seck ànd Serigne Mohamed Cissé. Serigne Mohamed Cissé. di doomu Serigne Moustapha Cissé Pire. di doomi Serigne Moustapha Cissé bu Pire. teew na fi. teew na fi. Serigne Modou Ngom. Serigne Modou Ngom. nekk ak Serigne Modou Kara Mbacké ca Thiès. nekk ak Serigne Modou Mba Serigne Modou Kara Mbacké ca Thiès. ànd ak taawu Serigne Modou Kara. ànd naa taawu Serigne Modou Kara. Seydina Ousmane Mbacké. Seydina Ousmane Mbacké. mi ngi ci mbooloo mi. mi ngi ci mbooloo mi. Serigne Ahmed Khalifa Niass bu Kaolack. Serigne Ahmed Khalifa Niass bu Kaolack. teew na fi. teew na fi. Serigne Sidi Moukhtar Kounta. Serigne Sidi Moukhtar Kounta. di Khalifa Baye Sidi Lamine Kounta. di Khalifa Baye Sidi Moukhtar Sidi Lamine Kounta ci Njaasaan mbooloo mi mi ngi ci mbooloo mi Serigne Cheikh Ndiéguène Serigne Cheikh Ndiéguène teew na fi teew na fi njabootu Serigne Saliou Touré njabootu Serigne Saliou Touré ñoom ñëpp ñu ngi saal ñoom ñëpp ñu ngi ci saal bi Serigne Saliou Thioune Serigne Saliou Thioune di taaw Serigne Béthio Thioune di taaw Cheikh Béthio Thioune woo na ma woo na ma mi ngi ci yoon wi mi ngi ci yoon wi ñëw lee mu yegsi ambassadeur u Gabon. ambassadeur u Gabon. teew na fi teew na fi. waaye nag dafay teew. waaye dafay teew. wuy si la ci màggal gi. wuy si la ci màggal gi. waaye yëg la waxaale la. waaye waxaale li la. ni euh, waajtaayu Masaalikul Jinaan. waajtaayu le 27 du ma de septembre di ubbi teeg Masaalikul Jinaan. meeru Lambarna. meeru Lambarna. ak meeru Libreville. ak meeru Libreville. ak meeru. Mayomba ak maire Mayomba. ñoom ñëpp joxe nañu seen confirmation ñoom ñëpp i confirmation. ci invitation bi ñëw teew ci Masaalikul daanu ñëw teew ci ubbi jooju. Serigne Jibi Soare. Serigne Jibi Soare. ak Serigne Mbaye Thiam. ak Serigne Mbaye Thiam. ñu ngi ci jotaay bi ñoo ngi ci jotaay bi. Serigne Babacar Pascal John. Serigne Babacar Pascal John. Serigne Dame Ndiégène. Serigne Dame Ndiégène. sa xarit le député. sa euh, Demba Diop si. sa xarit député Demba Diop si. mi ngi fi mi ngi fi. délégation Moustarchidine wal Moustarchidaat. délégation Moustarchidine wal Moustarchidaat. Serigne Mansour Ndione. Serigne Mansour Ndione. ak El Hadj Malick Mbaye. ak El Hadj Malick ñu ngi ci yoon wi ñëw ñu ngi ci yoon wi ñëw. waaye sa xaritu bopp wa. waaye sa xaritu bopp ba nag. almarhum. almarhum Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Maktoum. Ah, àddina yëpp xam sa diggante ak moom. adduna bi yëpp xam sa diggante ak moom. njabootam gu tedd gi. njabootam gu tedd gi. teew nañu fi teew ngi nii toog. def délégation bu mag a mag def délégation bu a mag. Sidi Ahmed si doomam. Sidi Ahmed si doomam ju tedd jaa ngi nii toog. jiite ko jiite ko. moom mii tey. moom mii tey. xalif général des Tidiane. xalif général da koo yónni fu mu ko war a mu ko war a teewal ca Ndakaaru. waaye mu ne lu mu xat-xat. waaye mu ne lu mu xat-xat. a wuute jotaay bi mënut a wuute jotaay bu tedd bi le. ànd ak say sa soppe. sa xarit sa xarit. sa confident. sa confident. Serigne Khalifa nga xam ni bari na loo xam ni lu daan dox sa diggante ak sëñ Abdoul Aziz Al Amin ci moom rek la daan jaar muy nit ku baax ku discret ku disponible son excellence son excellence le président Macky Sall le président Macky Sall yebal na fi délégation bu mag monsieur le ministre ngi nii toog di Abdoul Karim Fofana bu paree danañ ko jox kaddu gi. Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh. ak Mor Ngom. ak Mor Ngom. léegi lañ fi jógee. président Abdoulaye Wade. président maître Abdoulaye Wade. yebal na fi délégation bu mag. président Madické Niang. yebal na fi délégation bu mag. président Idrissa Seck. yebal na fi délégation bu mag. président Sonko. président Sonko.